ñii may jàkkaar lool ak tirbin bii mu féete gauche ñépp jóg ñu àndandoo wax ni jërëjëfe sëriñ Touba dama bëgg ñépp jóg ñu àndandoo wax ni jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba xaadimu rasuul jërë ngeen jëf man ngeen a toogaat bismillahi rahmaani rahim Cheikh Mouhamadul Basir ñi ngi sàkku sa ndigal ndax sëriñ tubaa dafa wax ni laa tafaalu shay'an bi gayri isnin fal isnu shartun fi xabuli sha'ni yaafi fi toog toogaayu Cheikh Mahamadou Muntaxa yaa fi toog toogaayu njabootu Serigne Touba yaa fi toog wuutu Serigne Ahmadou Mokhtar ci jataay bi kon ñu ngi sàkku sa ndigal pour yëkkati kat jërëjëf asxaab alsamaati suyuux al ajilla asxaab almaali alsaada alwuzara mumassili xukumati sénégaliya أصحاب السعادة السفراء ممثلي البعثات الدبلوماسية أصحاب السعادة منظمات أهلية الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sunuy kàddu kàddu yu gàtt lay doon li ñu fi dajale tey mooy fàttaliku téeméeri at gannaaw bu fi Serigne Touba jógee sëriñ bi 1927 la fi jóge bàyyi fi seex Mouhamadou Moustapha ak mbooleem ñi bokkal sëriñ Touba ak seex si ak ñi bokk sëriñ tubaa Mamour Anta Sali ak ñi bokkal Mam Maram ñépp bu ñu demee tey mu mat téeméeri at ñu koy fàttalikuwaat day wane ni sëriñ tubaa sunu borom nangu na liggéeyam ndax bari ñoo xam ni taxawaloon nañ tariixa mais gannaaw téeméeri at seen tariixa day dellu di gën di wàcc di jëm ci suuf waaye ku xool yoonu murit fa tabaarakallaahu xam na ni Sëriñ Tubaa li mu bëggoon dénkoon ko Seex Moustapha ak njabootam fa tabaarakallaahu matal nañ ko Seex Mamadou Muntaxaa nag lii lépp moom la ndax liggéey bi moo ko jëlal boppam njëkk a yëkkati téeméeri million def ko ci jox ko sëriñ Cheikh Abdoul Aziz mi jox ko ndawam lële muy Cheikh Mamadul Bachir Abdoul Qadir mu indi ko jox ko sëriñ Ahmadou Mokhtar mu yëkkati ko teg ko ci loxol sëriñ Abdoul Aziz mi sëriñ seex Mbacke ngir bis bi mën a jàkk kon Cheikh Mamadul Bachir sëriñ mu ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm taxawaayam ci yoon wi li sëriñ bi bëggoon. naaloon ko yéene woon ko bëggoon ko ci yoon wi la ci gën a ëpp solo muy xam-xam fa tabaarakalaaw bi mu ñëwee da koo yëkkati dundal ko kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant Serigne Ahmadou Mokhtar xalifa Daaru ci pas ci taxawaayam ci bëgg lu baax ci nekk ci gannaaw ay kilifaam Serigne Ahmadou Mokhtar yàlla na ko sant Cheikh Mamadou Bassirou Abdoul damay wax ni zurriyatan tayyibatan zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja mustafaa te tajtahidu googu suñu borom doon ñaan boromam mën nañ koo firi ci yow ndax mën naa ni depuis 2009 lañ la jox cër bii bari waa na ñoo xam ni bu teg woon ci seeni loxo wadd na bu yàgg nga yor ko ci yaatu dënn ci baax ci mëna a muñ ci nekkub taalibe ci gëm Serigne Touba kon ñu ngi lay ñaanal yàlla sàmmale yàlla jàppale la di nuyu Serigne Fallou Mbacke mii mu Serigne Abdullah mu Serigne Ibrahim di ko yàlla baaxal teel fee ñëw ci suba di nuyu Serigne Abdoul Karim mu Serigne Abdou Aziz Baara di kilifa ak Serigne Aziz mii waaye di nuyu sëriñ Moustapha mu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma Serigne Moustapha ñu ngi sant sarak ji Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma liggéey bii. engagement ak volonté ak détermination bu mag la ci àndal ànd kook mbokkam yépp kon ñu ngi koy sant ci sa tur bu ma ko tuddee tudd Serigne Ousmane tudd naa njabootu sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké gépp waaye di sant Serigne Cheikh Mbacké Laay dama koy wax ni ko Seydina Limaamu dafa waxoon ni yéen sama njaboot seen mbokki diine mooy waa kër Cheikh Ahmadou Bamba bu ñu demee seen kër fekk nañ fa Serigne Cheikh Mbacké Laay yaa ngi ni toog fekk fa Serigne Basirou fekk fa sëriñ fàllu ñépp a nga fa te loolu mooy wane ni sa waajur ku bëggoon lu baax la ma ñëw ci suñ waajur bu baax wii sëriñ Mansour sëriñ Mansour si Malick jërëjëf teel nga fee ñëw bi sa mbokk mu baax mi ñëwee sëriñ Basiiru yaa ko gàttandu yaa ko dalal kon diggante Tiwaawoon ak Tuubaa du ñu ñaari kër génn kër lañu ngeen xam ko di ko dundal di ko mottili saa su nekk ma ñëw ci jëwrin jëwrin sëriñ Mbàkke yu fay sëriñ Basiru maa ngi lay seddal ni liggéey bi bu melee nii gannaaw sëriñ Muntaxa sëriñ Mbàkke yu mii kenn mënu ko ci liggéey bi kenn mënu ko ci bi nu ñëwee dafa jël yëf yi ci loxol boppam téel ko boppam yëkkati 20 millions def ko ci boole ko xeeb ko loolu mooy li ñu mën a tudd ca kaw bokkut ak li nga xam ni def na ko ci suuf kon sëriñ Mbàkke yu jërëjëf monsieur monsieur le ministre de l'intérieur ñu ngi lay sant di la gërëm yow nit ku baax nga nit ku yaru nga ku bëgg lu baax nga ku am respect ci doomu aadama nga ba nga nekkee gendarmerie saa su nekk lépp lu xew ci yoonu murit bu Samba Jaw ñëwee ci yow ci turu jëwriñ mbàkk yu fay mais da nga taxaw taxawaay bu am solo kon ñu ngi lay sant di sant say kilifa di sant monsieur le premier ministre Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye Serigne Moustapha Ndiack Sarr jërëjëf Serigne Cheikh Abdou Aziz bis bi rafet na ndax damay wax ni Serigne Cheikh Mbacke 1912 la 12 ak 27 fukki at la ak ñeent bi fi sëriñ Touba di jógee booba mi ngi jàng alxuraan sëriñ Modou Moustapha fab liggéey bi téel ko boppam gaaral ko boppam taxawul ko boppam ba mel nii la sëriñ bi bëggoon nag ba tax mu wax ni wajaal ilaahi maskani tuuba abad mislas miha bi jaahi xayri man abad Cheikh Mouhamadou Moustapha bayit woowu Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko moo ko matérialisé ndax moo fab Serigne Touba yóbbu ko Touba kon Serigne Cheikh Abdoul Ahad Serigne Cheikh Abdou Aziz ñu ngi lay sant liggéey bu mel nii dañ ciy sagu ndax buñ ko dénkoon Serigne Abdoul mii boo jógee ñëpp ay ànd ak moom ndax Serigne Touba kër gi benn bopp la waaye buñ ko jëlee jox la ko nga bokk kër Cheikh Mouhamadou Lamine Baara fan yi lekkoo naanoo nelawoo ba yandoor muy taw muy naaj. muy guddi muy bëccëg yaa ngi ci xar setaan tuba ba mel nii kon ñu ngi lay sant di la gërëm Abdoul Aziz Kabe ñoo ngi lay sant Serigne Khadim Lo Gaydel ñoo ngi lay sant di la gërëm grand Serigne Bassirou ma Diagne ñu ngi lay sant di sant Serigne Abdoulaye Makhtar Diop di sant mboolem kilifa diine yi fi teew yépp Serigne Touba nag kenn du moom ndax moo wax ni tawaafu kulli man alayya ankara inda al ilahi wannabi lan yuskara képp koo xam ni nanguloo ma boo demee ca kaaba gi di wër rasulullah du la nangul suñu borom du la nangul loolu nag pour nga nangu ko da ngay gis da jëfandikoo tasawuf ndax Sëriñ Tuubaa moo wax ni ittibaahu xaqi sayqil murabbi ansamu min xaqil walid li anna sayqal murabbi yurabbi arruux wa yuraqi ila llahi fala budda lahu min duxuli janna wal walidu yurabbi aljisma faqat imma min duxuli janna wa imma min duxuli naar loolu nag ku déggul tasawuf nangu woo ni sunu boroom lépp moom la te bu ko neexee mu fab ab jaamam yëkkati ko teg ko ci kaw ñépp te Serigne Touba loolu ko suñu borom defal kon bis bi ñoo ngi ciy sant mbokk yi di gërëm ñëpp di ñaan yàlla ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim de génn ci alhamdulilah rabbil alamin Serigne Mahamadou Muntaxa Cheikh Basirou santal ñu Serigne Mahamadou Muntaxa Serigne Mahamadou Muntaxa dafa nangul ay magam tarbiyewu ay baayam bayan bii ñëw ci moom. dama koy wax ni ko màggal 2017 taxawaay bi nga am ci wetu Serigne Sidi Maxtaar ànd kook magam ja Serigne Basiiru Baara jamono booba dafa nangul Serigne tubaa ba jeex takk moo tax 15 jours 20 jours après Serigne tubaa sunu borom subhaanahu wa taala ni coppet Serigne Basiiru Baara jël yóbbu mu fekk ay waajuram yu baaxe jëli Serigne Sidi Maxtaar fayee ko taxawaay bi nga xam ni amoon na ko ci yoon yi fexe ba nga xam ne yoon wi taqul tilimul xajamul. kon sëñ Mouhamadou Mountakha yàlla na ko yàlla fay sëriñ Cheikh Abdou Aziz ñu ngi lay sant di la gërëm di sant mbokki taalibe yi mbokki taalibe yi sëriñ bi li mu bëgg lépp yéen a ngi ci mooy jàng alxuraan ak jàngu xasida buñ leen woowee lu ngeen jàpp bàyyi ko ñëw ànd ak sëriñ bi ci bëgg-bëggam ba lépp jeex kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm ma fab kàddu gi jox ko sunu mag sunu xarit sëriñ seex Mbacke Abdoul Aziz mu yëkkati ay kàddoom ci kaddu yu rafet kaddu yu tey jàllale message sub sëriñ Ahmadou Muxtaar bisimilah Cheikh sëriñ Cheikh bisimilah tafaddal kaddu gàngoog Nasiru Diin Ahmed Saloum. jërëjëf sëriñ Cheikh mu ci boppam mooy bëgg a wax nag mooy bëgg a jël kaddu gi moom lañu tegoon liggéey bi ci loxoom liggéey bu rafet boobu mu saytu ko lépp yàlla sama rafetal ko su ko defee ñun ñëpp dañuy àndandoo déglu.